dëkku diine la dëkku islaam la xam na ni seen waajur yu baax yooyu nga xam ni ñoo sanc fii Pire liggéey nañu liggéey bu mucc ayib ngir islaam sax fii ci Sénégal bokk na it ci ñi nga xam ni liggéey nañu ci islaam boo xam ni mooy islaamu jàmm mooy islaamu salaam mooy islaamu bëggante mooy islaamu soppante neena na day islaam boobu moom la Sénégal xam islaam boobu moom la kilifa yu tedd yi fi nekkoon xam mu Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke yal na yàlla yokk leeram muy ki nga xamante ni mooy Haji Malick Sy yàlla yokk leeram ak kilifa diine yi fi nekk yépp wax na ni nag li nga xam ni moom la liggéeyoon ci juróom-ñaari at yi weesu ñu koy wooye plan Sénégal émergent mu am ñetti pàcc yum ko teg ci wàllu koom-koom ci wàllu nit ñi ci wàllu gouvernance mooy ñetti pàcc yooyu nga xam ni moo yoroon plan Sénégal émergent nee fas yéene naa continuer ko nag wante nag dina bàyyi xel ci ay point yu am solo yoo xam ni bëgg na kilifa yépp rawatina kilifa diine yi ñu jàppale ko ci bokk na ci mbirum xale yi mbirum ndaw ñi moom lay wooye PSE jeunesse ñu fexe ba tàggat xale yi jàngal leen wutal leen métier def ci ñoom citoyenneté ba ñu xam ni suñu Sénégal gi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëkk ñoo ko bokk doonul loo xam ni ku ne dangay aw sa wàllu bopp wante senegal Sénégalu ñëpp la te loolu nag ci ndaw ñi lañ ko war a commencer wax na it ni fii ñu jëm ci jamono nga xam ni xarale yu bees yi dafa doon loo xam ni benn réew mënul dem te maîtriser wuloo ko ñu jàppale ko ci muy numérique te suñ jigéen bii di te Ndeye Tické Ndiaye Diop mu dénk ko ko mbirum xale yi suñu jigéen bii toog di nee na Fatoumata Tall moom la ko dénk kon président nee na yooyu tamit ñu jàppale ko ci ba mu mën a sax ci senegal waxna na it ni nañu fexé ba lepp lu ñuy biir Sénégal ñu doll koko kom kom indi fi ay usines yo xamni transformer industrialisation néna na ci ay jamono lañ fi daan dox muy ay coopérative ay yu nañ ko sociale et solidaire yi ci des mooy te mi ngi la koy ñaan sëriñ bi nee na président yi wax cet gi ci dëkk bi nañ ko ci jàppale ndax suñu réew de wax dëgg yàlla lu bare am na fi waaye am na loo xam nag doon na loo xam ni buñ ci jëgul mën na indi loo xam ni dañuy gàllankoor mooy mbalit sëriñ bi mbalit mi bare na ci dëkk bi booy dugg ci dëkk lilay wan ni yaangi ngi duggu ci dëkk moy mbalit lilay wan ni yaangi genn ci dëkk moy mbalit waaye président nee lu. gor góor rawati rawatina nak ñi yor gox-goxaat ñi di maire yi ñu japp ci liggey bobu ba suñu dëkk yépp set nit ak mbalit ño and wante dañ leen di séparer di dëkk ak mbalit president neena nañ ko dimbali ndax am na yu ko réussir boo demee ci réew yu développé yi ni ñuy génnee mbalit la ñuy génnee mbalit wante foofa dem da ngay fekk mu set kon nañu góor góorgóorlu président nee loolu ñu jàppale ko ci bu baax a baax a baax jàppale ko ci citoyenneté ñu xam ni Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk moo tax mu woote waxtaan woote dialogue national tàllal loxo ñëpp nag président nee na tàllal na loxo ñëpp moo xam. ñu ànd ak moom ci wàllu yëngatu àdduna ci wàllu politique muy majorité moo xam opposition woo na ñépp daal ñu toog ngir jàmm ak salaam am ci Sénégal ndax fu jàmm amul développement mënu fa am koom-koom mënu fa taxaw loolu nag du lu bees ci moom ndax diir bi mu yore Sénégal 2012 ba léegi ah tàll naay loxoom di waxtaan ak ñépp président nee na mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant wax na ni nawet bii ñu génn liñ ci góob ci dugub wala xeet yu mel noonu liñ ci déqi ci gerte wala xeet yu mel noonu liñ ci witt ci ñebbe wala xeet yu mel noonu liñ ci def yal na ko yàlla def mu doon barke ña ko doon liggéey mu ñu muurloo ko man ci yor seen njaboot fii ba déwén nawet bi nee na njàqare amoon na ci ci commencement bi wante suñu boroom ci barkeem def na ba ci mujjantal gi wax dëgg yàlla li ñu fi am ci récolte baax na pour Sénégal te gouvernement am dina taxaw ci lépp loo xam ne war nañ ko jàppale baykat yi jàppale ko sàmmkat yi jàppale ko nappkat yi ngir ñu am ay revenu yoo xam ne ci la ñuy mën a nekk président nee ci loolu la nek suba ci la nek ngone ci lay xëj ci lay yendu ci lay fanal loolu la président waxoon ni bu ñewé ñu wax lako liñ ci yok nak ñun moy nga ñaanal président Macky Sall bu baax a baax مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صل وسلم دائما أبدا على